xarit defal bàyyik tawat ak sa bakkan muy sag tawat bàyyik tawat doy nag tawat doy loo ko wëllis di tawat murit muñ santa ko war jéema la sax ci lala war bul bàyyi mukk lala war bala la war day taxaxat ku sab sëriñ mayug ji ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa léegi mu fab la sànni kët ku am ci sab sangug jigéen war koo ragal ngir ku jigéen ak dex bu sàgganee suluñ ca dex ga cay yewwoo ka jot amuk jigéen ci sab sëriñ du tax nga sañ ci sab sëriñ lu kenn sañul ci sab sëriñ ku ragalul yàlla du nit bul maare ngir amuk jigéen gisal weteñ am nag jigéen te gis nga ñuy dindi weteñ mu dañ ñu fam sànni ñu rot bul maare ngir amuk jigéen gisal weteñ am nag jigéen te gis nga ñuy dindi weteñ mu deñ ñu fab sànni mu rot dalal di dolli kuk cofeel te dolli kuk ragal ca ñu dal lay dolli ngëneel te may la mucc gu rafet tuubal ñu may la sutura farle nga mooy ci sutura fekk li nga bañ ci sutura nga dal di jag faw te set ku wàcc luy nuroo ki te réccu luy nuroo ki day mel ni sax musula mooy réccu li mooy faw xarit ku bàyyi mooy yépp ci suuf ñu bàyyi aw tiisam ci suuf te dal di koy fabe suuf yóbbu ca kaw mu daldi di set dalal di rocciku ca suuf bàyyi lu dul ndigal ci suuf ñu daldi di lay rocci ca suuf jéggal la may la sa mébét ab lar bu sangam woo ci ndéey wax ko la muy bëgg ci ndéey na def la muy bëgg ci ndéey ni cell nag bañ a tawat adduna ñàkkuluk tawat ku ci ne ameloo tawat ku bëgg a ñàkk ak tawat day génn addina wéret kilifa am na ak tawat ab surgaam naak tawat ku nekk am na ak tawat bàyyik tawat daala rafet ku ñàkk am na ak tawat ku woomalit amuk tawat kenn du ñàkk ak tawat te tàbbiwul àjjana kët koo ñu naa sant na it mi ngi weyaale ay tawat yu rëy aki ak yu mu amul yewwul xarit adduna mi kër la gu tiis ngir yàlla moo ci defu tiis ku ci ne faw amu tiis muñal te far def ku lewet loo mën a dégg na la neex loo mën a seeru na la neex lu yàlla def mu war a neex te yàlla daala fi defit ña jiitu ak ña des ginnaaw ñépp ak ña far yéex ak gaaw yàllaa ko def tee nga ni waaw nangul te bul bañ a xat jiitu ak ña des ginnaaw ñépp ak far yéex ak ña gaaw yàllaa ko def tee nga ni waaw nangul te bul bañ a xat jiitu kenn jiitalu ko ka topp kenn tofalu ko ku dul boroomam dégg nga koo ku réere wax jile du nit lu yàllaa te ku mu neex ak ku mu neexul na la neex képp ku àtteb yàlla neex mu falu am la muy mébét yal na nu àtteb yàlla neex fawute lépp lu nu neex loola la yal na neex a neex yàlla te saf sëriñ biit maa ngi dagaanati yu baax yu am njariñ lool ak ñu baax ñu am njariñ ñu baax a baax te boole am xel ak ku fit maa ngi dagaanati lu yees ngir yàlla am na may gu sëriñ bi am na may gu yees man nañu maa dolleeti it yal nañu nuy dollig murit gu yéemu loola ki murit yu gëm murit nu gudd fan amuk wérit yal nañu nuy dollig murit gu yéemu loola murit yu gëm yu ràññiku murit nu fan amuk wérit lu ndigal amul njariñ kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te toppul ndigalam kem loo defal nag sab sëriñ am lu na toll ciy njariñ loo defalul nag sab sëriñ boo ko bëggee it doo ko am ab teretak ñàkkul dara waaye ku saytuwul dara du am ca njaayam ma dara lii ma taxam te ma tëggam ku jóg ba dem fib teretan te yóbbuwoo dara du bég teb sëriñay ab teretan du joxe ci neeni yëfam soo si yow na ndaw soo xam ni moo gën sépp ndaw bul daw di jëm ca soo sa ndaw dawala daw wutik canam boo bëggatee lenn njariñ ci sab sëriñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam ku yar yëfam nga yar sa yëf ba noppi làq nag sa yëf di laaj yëfam yaa gën a dof nde sa xel du ko xalam bul jaay sa bopp bu ko nax xamal ni kat la jox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 kon di nga làq wépp yiw tey ak ëllëg maa la ko wax rikk asan lu mën a xew awal ndigal te yaru yow kon di nga làq wépp yiw tey ak ëllëg maa la ko wax mboolem lu dee fi jóg di wut yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rekk mata am ku yaru rekk mata xam ku yaruwul matu la am matu xam turam wasax ab yar li tax amul moroom day tax a gën fa say moroom tey tax a gën fa sa boroom ku la yarul rekk la nax ku la mayoone junni it te jàppalub yar may layit léegi nga gis junni boroom yar far ko te sex ku yaruwul matu la yar ku yaruwul matu la yor ku yaruwul alku nafar ku yabu far tabbal ko pax ab yar yemoo wul dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñàkkul dara sëriñ bi yàlla na nu ko jox ab yar la dee fi gëne nit ab yar la dee fi sute nit ab yar la dee fi rawe nit ndedu alal ak rëy yax jur mat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax juddoo ki jur mat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax ku gis boroomam dootu gis boppam te noo moo na dootu gis moroomam it te dootu gis dara ka wax waxi larax ku gis boroomam dootu gis boppam te moo na dootu gis moroomam it te dootu gis dara ka wax waxi larax moo tax ba yàlla ku ko am yaru kenn du ko am te amulub sëriñ ndaxam ku xam du weddi lii ma wax ngir yàlla ne ci alxuraan wutal ci man ab kerkeraan teb sëriñay ab kerkeraan asan jàppal ci jile wax ku yàlla jox mbooloo mu doy ñu di la gontal ak a xëy loo kenn du ko moy war ngaa jubal te bañ a moy te war nga leen a gindi ñoom bañaw siraatal mustaqim te fexe bañ jaamu xadiim bu wér-wér te wéy-wéy mbaalu ko moy yawmal xiyaam daañu la war ni jéggi mbaam mbaa ñi le ña nga yoroon joxe ko tey ngay jéem daw doo daw mbooloo mi mépp a ngi la gaw xawma ci yow lu may taxaw te jéema muñ gàcce gu rëy bis boo xëyee lekk ba suur ba noppi sàng nag sa biir bul ñeeku dee si tudde buur ca booba bis ngir am nga nguur addina mboolem ñi ko am yëgal ni kenn du ci am dara lu dul li nga ci am ak cant war na la buur koo xam ni ëpple na la ay yëf ndaxam ëpple la ab coona coona fitna la ku ko amul bari nga muur koo xam ni moo la ëpp nit faw mu ëpp la tawat doo seeru nit ku amu nit ndara ma ngay tawat ca biir adduna loo ci am mu doy lu tuuti tuuti dal doy lu rëy rëyit du tax mu doy kuy sàkko adduna du suur adduna doy du ci ne ak doy moo ciy xalane koo gis mu am ci lu ne du tee mu soxlay jóori jóor ku kenn nit rekk doyul am fukk tax koo doyal am junni tax koo doyal rab waa ngi nii soxal te diir mbu tubéy bu la doyul xamal ni soxla nga lu dul loo toppe yàlla ak ndigal tuubali mooy te buur ku soxlawul lu dul bayi saa su añee na jóg bayi te añ nga kat jógal bayi sa daara jaa ngi nii di riir wëratu laa la géey yëlëf lu dul di sant def la sab sëriñ ni dee ko def tey moyu luy waralu toor sama yi na te bari sant la sant lu bari tane nga kët gaa bari war ngaa joxe cant gu foor bàyyik tawat war na la yow ak cant it war na la yow ngir sab sëriñ fay na la yow te teg la ca kaw te jox la nguur bàyyik tawat war na la yow ak cant war na la yow ngir sab sëriñ fay na la yow teg la ca kaw te jox la nguur ku la ni wax man ak sa nguur gi ñu la jox dëgg bu wóor nga ni ko ak doyloo di nguur te doylu naa wali si buur ku ni wax man ak sa nguur gi ñu la jox dëgg bu wóor nga ni ko ak doyloo di nguur te doylu naa wali si buur adduna yeewu ci bu baax te fàggu cee fàggul lu baax ngir fi la ñuy fàggoo lu baax te fi la ñuy baaxee ka bon loo fi amul dootoo ko moo tax fexee la daal di am tey ak ëllëg ndama ngërëm te saa su jot nga par fi gën addina moo di am nawet ku ci bayul ba mu sewet dina torox dana tawat yal na nu bay te gudd fan sëriñ bi yee nanu bu baax yal na nu yeewu nag bu baax tey jëm a jëm kanam bu baax di dolli koy cuuja ki nen yal na nu am gone yu leer ak mag ñu leer a leer ci wile weer ak wépp weer wu teru fawwati bi jamono jaa ngi bëgg a yees waa jamonoo ngi bëgg a yees léegi noo am cant gu yees bërigo bee ka bërigo baa ngi bëgg a jóg ku bëgg a jóg léegi mu jóg ku bëgg a jag mu jag yal na nu jag fekke déwén yal na nu jag fekke déwén te sunu gën sunu yal na ngërëm dikk fi nun naataa nga sax faw fi nun daggay ngërëm na sax fi nun yi dugub dëkk fi nun ndox ak ngërëm dëkk fi nun nuy sant kay teralu gan waxtu wu jot nanuy gërëm faw aka def lu ñu gërëm ñu di nu sant gërëm faw aka may ndolleen lu jan nan sunu xol yi sedd lool sunu yaram yi sedd lool te sunu fan yi gudd lool nu mucc ci war a ki fen sëriñ bi yow ki yori mbég te saytu nag saxaari mbég yabal fi nun cant ki mbég te def nu ñuy baax ak a sëriñ bi yàlla na nu ko neex fawute lépp lu nu neex loola la yàlla nay la ko neex te saf ko loola jubu ko sëriñ bi yàlla na nu ko neex fawute lépp lu nu neex loola la yàlla nay la ko neex te saf ko loolet jubu ko nun ñëpp yàlla na nu ko saf sapp te sax ci lu ko saf te am ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ràññiku na nu def mbégum xolam fawute sax ci ndigalam tey sant nag cib dogalam te gëm ko lu ko jago yal na nu def mbégum xolam faw te sax ci ndigalam tey sant nag ceb cib dogalam te gëm ko lu ko jako yal na nu def mbégum xolam faw te sax ci ndigalam tey sant nag cib dogalam te gëm ko wóolu ko jago lu nuy bégal na koy bégal lu koy bégal na nuy bégal yal nay dogal lu nuy bégal faw ka may lu nuy dogu nay bég ci nun nuy bég ci moom muy na ci nun muy na ci moom mu sax ci nun nu sax ci moom jëf ju nu jëf mu sant ko sunu digg ak moom it na leer te diggam ak na leer fàww ci wii weer ci weer wu nekk yàlla man na ko na sunu diggante rafet te bu mu am sennas tawat bu mu amit sennas léget yaatu ci yow jagle nu ko sallu ngërëm sarax nu ko santum ngërëm tofal nu ko te dëgg fab ko may nu ko réewum ngëneelut fal nu ko aw gaaya ngi fi sunu suuf nu noo ngi nii ne ci sa suuf nu bokk nag ne fi sa suuf ku ne ca kaw kawe nga ko kawe nga yow ña féete kaw mboolem ña féete ñépp kaw xamal ni yaa ca féete kaw ku musa rëy suuxal nga ko roofa la roofa roofa roof ci nun mbég yu teenu xiif nun deenu may jàmm ko wuuf foo ràcce sux jañax nu ko roofa roofa roofa roof ci nun mbég yu teenu xiif nun deenu may jàmm ka wu foora ci sif jañax nu ko boo jamatee may nu ndawal te may ndawal ku lay dawal bu kenn ñàkkati ndawal ku ne ci yow dimbali ko ku nekk barke na ko dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as su dal xelam ñu gëm ko sopp ko mu dali sant mu di la sant ka bégee ñu di ko sant ka bégee nga fal ko fee ñu ko tigi muy bég te dootu falliku mu di la sant ka bégee ñu di ko sant ka bégee nga fal ko feeñu ko tigi muy bég te dootu folliku yaa nu fegal lu dul njariñ ba noppi jébbal nu njariñ yow rekk am ci nun njariñ lu nuy ragal dindi nga ko yaa nu faral géppug tawat yaa nu fegal géppug tawat ku la amul amuk tawat te lu mu am ñu nangu ko seral nga xol dalal nga xel dolli nga nug baax alal loo digle yàlla na nu gënal am am bu ñàkk dul tege loo bëgg nag nu di ko def nanga nu may nu di ko def te loo bañit bu nu ko def xarit defal bàyyi